ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi war a jël tey suñu aaya bu jëkk ci suratu saba kon gannaaw ba ñu sante suñu boroom suñu bisub tey bi mooy tombeeg fukkeelu fan ci weeru Shaaban di weeru baraxloo bi nga xam ni mooy kiy ñëw di ñuy fàttali gan gu màgg googe di chehru ramadan yal na yàlla fekkeloo ñu ko ci jàmm ngi tombeeg le 24 mars it ci 2021 ñu ngi ñaan suñu boroom subhanahu wa taala la nga xamee ni nii moom la ñu ab yonentam béggeloon ci ne du daje mukk benn mbooloo ci néegi borom bi di jàng téereb yàlla bi lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd te malaaka ye kawe ye ne fa moom yal na yàlla boole ci suñ jotaay bi boole ci ñi koy suivre it en direct ak fu ñu mën a nekk ak ña nga xamee ni nii dañ koy déglu gannaaw ba suñu borom yàlla boole ñu ci ñun ñëpp ci ñooñu alquran kon comme niñ leen ko waxee ñu ngi dal ni saar ba xam ne mooy suratu saba di saar buy nettali histoire boo xamee ne nii amoon na ca waa saba di dëkk bu nekkoon ca yaman incha allah bu dee cheikh ousmane pare na mu delloo lu ñu bind bu njëkk
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سني بروم منكن الحمد لله مالمي تنت دي نيلنا يلا الذي له ما في السماوات وما في الأرض moom moom nga xam ne ñeel na ko lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf walahu alhamdu fi l axira ñeel na ko cant yépp it ca alaxira wa huwa alxakimu alxabir mooy ki xereñi ki nga xam ni lu na teg na ko fa mu ko war a tege mooy attekat it ci attekat bu gën a maandu ci ñuy atte muy alxakim yaalamu ma yeliju fi l ardi wa ma yaxruju minha xam ne lépp loo xam ne dana tàbbi ci suuf ak lépp luy génne ca moom وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ak lépp luy wàcce asamaan ak lépp luy yéeg jëm ca moom wa huwa arrahimu alghafuur moom mooy kiy yërëmaate kiy jéggalaate wa qaala alladina kafaru la taatiina saa yéeféri nag ñoom ñi ngi naan waaye bisi penc daal duñu dikkal mukk alaxira loolu du am mukk qul bala wa rabbi tontu leen ne leen ahakay maa ngi waat ci sama boroom la taatiyannakum aalimil xayb dana leen dikkal loole sama borom boobu nga xam ne mooy xam kumpa laa yazubu anhu misqaalu darratin fi lsamawati wala fi l ard du rëcc ci moom lu tol ne zarra muy dañ ko daan wax sànq leen ñu gën a tuuti doonte ne borom xam-xam yi tey ay atome lañ koy firi loo xam ne dañ koy multiplier des millions de fois pour mën koo gis ci bëtu neen loolee du doon ci asamaan ak suuf wala asgaru min zalik wala lu gën a néew loolu wala akbar wala lu gën a màgg loolu illa fi kitaabin mubin lu dul looloon nekkoon na ci téere boo xam ne téere bu leer la mbokk kon saar bi mooy suratu saba suñu borom ubbee ko sant boppam sant boppam ci alhamdulillah jëkk na ko wax ca fatiha alhamdulillahi rabbil alamin wax na ko ca anam alhamdulillahi alladi xalaqa alsamawati wal ard wax na ko ca fatir alhamdulillah fatir alsamawati wal ard juróomee la place bi fii mooy fi mu ko waxee alhamdulillahi alladi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard mbokk suñu borom mu ni mboole mi cant moom la ñeel na am li nekk ci kaw asamaan ak suuf moo ko moom moo ko bind waaye lépp da koo def njëriñu doomu aadama yi ñu war ko cee sant boo xëyee jàkkaarloog jant bi alhamdulillah ci jant mbokk jant bi bu fi nekkul woon suuf nekk bloc de glace ñun ñëpp ñu dee am déet alhamdulillah ci weer bi yàlla def mu nekk satellite ci suuf di équilibré équilibré océan yi alhamdulilah ci géej alhamdulilah ci ngelaw bi ñu noyyi am alhamdulilah lépp loo gis ci asamaan ak suuf suñu borom mu ne xalaqa lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jamian minhu lépp lu nekk ci aw asamaan yeeg suuf yàlla def na ko ngir seen njëriñ kon alhamdulillah mi nga xam ne lépp kaawtiif ma nga cay wane ni alhamdulillah te mooy moom dong mooy aji bind ji moom dong mooy aji xéewal ji keneen ku dul moom daa soxlaa xéewalu yàlla mi ngi noonu loole jullit war koo xam suñu yeneen te sunnaal ci ñun ne foo sëlmale wax ko 33 fois mi ngi noonu foo sëlmale rek wax ko 33 fois te mooy yéen ñëpp bi ngeen sëlmal ñii léegi wax ngeen subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 borom boobu ni kon moo moom cantuk àdduna looloo tax ba yi muy reer ba réggi jiix wala bëcc ko ne jërëjëfe sëñ saar wala jërëjëfe sëñ caam wallaay delloo nga cant ku ko yeyewul borom yàlla mooy ki la bind moo la may wér moo la wërsëgal alhamdulillah mi ngi noonu borom boobu it ne li ngeen am ci àdduna yépp ci moom la jógee wa ma bikum min ni'matin fa min allah àllaaxira bu ñu fa demee kenn du fa sant ko dul yàlla alhamdulillahi alladi hadana li hada mi ngi noonu aw alhamdulillahi alladi awrasana al ard da'waahum fiha subhanaka allahuma wa tahiyatuhum fiha salaam wa axiru da'waahum an alhamdulillahi rabbil alamin mbokk àllaaxira kenn du fa dugg aljanna di sant keneen ku dul yàlla kenn du fa mucc ci mbugal di sant keneen ku dul yàlla da ngay xam ne yàlla dong ci lépp ci loo xam ne nekk walahul hamd fi laaxira borom boobu it teg ca ni mooy ki nga xam ne mooy alxakim alxabir alxakim dana firi attekat bi waaye dana firi dogal kot bi dogal lu ne mu teg ko fa ko neex looloo tax yàlla mooy attekat bi nga xam ne lam atte dong mooy dëgg waaye it ay luwaam ak i jaamu yàlla yim ñu tëralal lépp xikma ci nekk lépp lu yàlla araamal borom xel buñ ko wax mu nangu ko lépp lu yàlla digle borom xel bu ko gis gis ci la nga xam ne mooy njëriñ xatta li ci gën a métti muy koor gi ñaata bénéfice la borom xam-xam yi jàng médecine di wax moo nekk ci koor mi ngi noonu kon muy alxakim waaye it mooy alxabir bi nga xam ne amul kumpa sunu borom la yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama dara réeru ko loolu tax mu nañu gis ngeen lépp luy dugg ci biir suuf xam na ko la cay génne xam na ko te mbokk sëñ caam day dem ca tool ba di ji ay gerteem ak i dugubam dugub yi yee nga tëdd yee nga jootu yee nga def yépp pepp dugub bu ne fam nekk yàlla xam na ko suñu borom bu ko waree wëlbati dina ko wëlbati jox ko kattan mu bëtt suuf pepp dugub boo xam ne peut-être un virgule zéro un gramme lay doon mën na yëkkati lu jege genn wàll liiburu suuf bëtt ko génn loolee suñu borom la nga ci dugaloon pepp xam na ko lam génn it xam na ko benn pepp dugub mën a génn mille pepp dugub waaye lay dugg ci suuf ci ay néewu lay dugg ci suuf ci lum mën a doon suñu borom yàlla mën a xam naa ko la cay génn it xam naa ko lu tax moo ko fa dencoon gars yi pétrole bii nga xam ne mooy doxal adduna bi ndax chinois yi ñoo ko créé déedéet suñu borom moo ko dencoon ci biir suuf gaz bi moo ko fi denc or bi naka noonu manganèse fer lu mu mën a doon moo ko fa def gannaaw ba pepp bii ñuy lekk ceeb beeg dugub jëw yépp mbokk kan moo ko créé muy suñu borom jàll wa ala kon xam ne lépp luy génne ci kaw suuf lii wàcce kaw asamaan ci ay taw moo ko wàcce lii wàcce kaw asamaan ci ay malaaka moo ko wàcce lay nar a yéeg jëm kaw asamaan ci jëf yi nga xam ne doomu aadama yi dañ koy jëf na doon baax na na doon bon na borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu lépp dara rëcc ko ci jàll wa ala doonte ne ne mooy arrahim mooy algafuur te lii it suñu borom yàlla yërmandeem lay feeñal ci la nga xamee ni nii moom la ñuy péege ci ay xéewalam moo tax lu bari ci alquran gafuur lay jiital ci rahim waaye comme fi ay xéewalam lay wax moo tax mu jiital rahim ci gafuur waaye tamit yow julit bi su la sa borom xamee ni lépp looy def dara réeruma ci mën ngaa jàpp ne waaw ñoom bi may rëcc di def nag mbaa man ëllëg yàlla duma ko toppee suñu borom ne leen mooy algafuur loolee nga def ci kenn xamu ko alxabir xam ko suutu bi mu bàll ko arrahim algafuur loolee la suñu borom yàlla ubbee saaru mag wi borom bi subhanahu wa taala ni yéeféer yi day ñoom dañu naan ñun day assaa mooy waxtu wi bis penc di taxaw loolu du am loolu du am te moo ko xam ngeen yéeféer gëmul alaxira ba suñ jamonoy tey jii planète terre mën nga wax deux tiers yi gëmuñu alaxira mi ngi noonu gëmuñu alaxira borom boobu nag subhanahu wa taala ne tontu leen ne leen bala wa rabbi ahakay waaye maa ngi wàcc sama borom mu lay jàngal ñaari mbir yeneen ci yàlla muhammad li muy baax baax ab jaam la yàllaay boromam am déet waaye nga la waay yow miy waatit bul waate keneen ku dul yàlla yonent boobu daa soxla buy waat waat ci turu yàlla kon booy waat waatal ci yàlla mbokk julit doo waat ci leneen lu dul yàlla yonent bi alayhi salaam mu ne ku waate leneen lu dul yàlla bokkaale nga koo kenn doon jibril la muhammad ibrahim waxumaa nag keneen ku dul ñooñ julit la muy waate billahi wallahi tallahi wa rabbi ila axiri mi ngi noonu suñu borom mu ne bisi fenc dana leen dikkal yàlla mu ma ko déggee mooy ki xam kumpa alimil xayb mi ngi noonu dara du ko rëcc ci kaw asamaan ci kaw suuf ndax lépp moo ko bind mbokk jullit da ngay gëm ne kaw suuf si yàlla indi ñu muy adduna bi ci gàttal rek lépp lu fi nar a xew yàlla bindoon na ko ba pare ndax yàlla dara ump ko ci li amoon li am ak li nar a am bi ilaa yawmi din tey jii ñu ngi nekk fii ci masjid Saad ibn Abi Waqas ci fukkeele frontière baraxlu yàlla bindoon na cinquante mille ans avant muy bind asamaan ak suuf ñi nar a teew ci tafsir bi yépp mi ngi noonu am na koo xam ni yéene woon na ko lool lool lool ba dernière minute ngant am am déet am na koo xam ne jàppoon na du mën a ñëw dernière minute mu mujj am occasion ñëw loolu mi ngi mi ngi am ci lan mi ngi am ci dogalu yàlla mi ngi noonu ñu ñu fàttali leen en sëñ Bilal ñu dolli ko ñaan suñu mbokk ba Cheikh Tidiane Dieng Cheikh Tidiane Dieng dafa nekk ci ay programme am programme am alarba ba yegg si jóge unité 18 tardé bokk ab téeréem di waaxu waaxu bu tàng ñëw bu ci école bi ci wetu jàkka ji mu daanu mu daanoo ay xale ñëw wax ñu ko ñoom Bilal Thiam dem fekk ko jël ko bañ ko yóbboo maam Abdou ñu ne leen kii faatu na mi ngi bokk ab téeréem jëm ci jàkka ji gis ngeen loolu mi ngi noonu loolu yàlla dogaloon ci moom kon jullit da ngay gëm ni lu mën a am yàlla ko dogal ci yàlla bind na ko ba pare doo tax nag nga bañ a sabablu sabablul yàlla mooy dogal lu ko neex kii mi ngi doon sabablu gàddu téeréb alxuraanam jëm ci néegub yàlla ba yàlla dogalul loolu mu dee ca yoon ba waaye nag jaaraamaa moom yàlla na yàlla nangul ko ah loolu nag la ñuy wax ci lépp yow mi feebar yow mi wuti wërsëg yow mi lu mu mën a doon fexeel ba góor góorlu tege ca yoon ba rek yàlla nag moo xam lu muy dogal ci yow mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala kon ni loolu lépp mi ngi ci téere boo xam ne nii téere bu leer la ca muy laxul mahfuz boo xam ne it jurit da ko war a gëm ne ca la yàlla bindi mboole mi programme mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد barakallahu fikum kon suñu boroom jalla wa ala mu ne li yajziya alladhina amanu wa amilu salihat ngiree mu fay ña nga xam ne dañoo gëm tey jëf-jëf yu baax ya ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim ñooñu dee dana leen ñeel njéggal ak wërsëg woo xam ne wu tedd lay doon walazina sa'u fi ayatina muajizin ña nga xam ne nag ñooy dox ci suñuy aaya yi di jéem a lottuloo diine yàlla ji ulaika lahum azabun min rijzin alim ñoom day dana leen ñeel mbugal min rijz mooy la gën a ñaaw ci mbugal alimun gën caa tarit ci mbugal wa yara allazina utul ilm waaye dana gis ña nga xam ne dañoo jotoon xam-xam day alladi unzila ilayka min rabbik ni lii nga xam ne wàcce nañ ko ci yow mu jóge ci sa borom day huwa alxaq wa yahdi ila sirati alaziz alhamid loolu rek mooy dëgg te ma ngay jubale ci yoonu ka nga xam ne mooy alaziz ki not lépp ci kàttanam alhamid ka nga xam ne cant yépp moo ko yeyoo alhamid day nekk fa'il ak maf'ul alhamid yàlla mooy ka ñu sant ka alhamid yàlla mooy kay sant ay jaamam wa qaala allazina kafaru yéefére dañuy wax hal nadullukum ala rajul moo xaay nda moo kaay du ngeen ñëw ñu tegtal leen ci góor goo xam ne yunabbiukum ida muziqtum kulla mumazzaq ne bu ngeen dem góor goo xam ne dana leen xabaare ne su ngeen demee ba ñu tasaare leen géppkoog tasaare mi ngi noonu ngeen moxoñoo gépp ak moxoñoo innakum la fi xalqin jadid la yéen de da ngeen di nekk ci bindun gu bees mi ngi noonu mbokk suñu boroom xamal nañu ni lépp luy xew ci asamaan yi ak suuf xam na ko looloo tax bu ñëwee ca moom alaxira ña nga xam ni gëmoon nañu cay def lu baax dana leen fay fay goo xamee ni nii njëggal lay doon ak àjjana yu kawe ña nga xam ni dañoo gëm te mooy gëm ne yàlla kenn la te nangu loolu gëm ne muhammad yeneen ci yàlla la ca nangu loolu saxal loolu jëf la yàlla subhanahu wa taala jëflu al amalu saalix ñaar moo koy tax mu am ca mooy benn jëf bi bi nga koy def yàlla rek a tax waaye bi nga koy def nga dëppale ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam timis yi ñu jóge léegi képp koo xam ne jóg na di ko julli yàlla rek a tax waaye mu ne nag ah naa ko far mottali ñeenti rakkaa rek yéen ñépp xam ngeen ni julli googu yàlla du ko nangu benn misaal la ci mboole mi misaal yi jaamu yàlla yi al amalu saalix ñaar yooyu moo tax mu baax yéene ba sell na dëppoon ak sunna baram bi mu ne ñooñu dana leen jéggal ca loolu it mooy la gën a màggalu doomu aadama di soxla mooy njéggalu yàlla su ko defee yow jullit ñaar yi nga la way taxaw ci taxawal ci moytu bakkaar taxawal ci jiggulu yàlla foo mën a toll texe nekk ñëw yoomal qiyaama fekk téere jëfam istixfaar da caa bari suñu borom yàlla du mbugal jaam bu koy jéggulu xatta ci àdduna suñu borom mu ne yonente bi alayhi salaam wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaxfiruun su ko defee ñu baril istixfaar jéggulu yàlla loolu it mu lay jàngal julit du bàkku mbokk loo mën a def pour nga tabbi àjjana da ngaa soxla yàlla jéggal la yenente ku dul yenent ki yëg yëg yëg bii ndax dana jàpp ne moom mën naa yóbbaale keneen àjjana te mi ngi yaakaar yàlla jéggal ko pour mu tabbi aljanna ndax ki am yëg yëg bii mën naa jàpp ne man kat suñ càmm muy dugal te suñ càmm moom mbiram leeragul ndax fokk yàlla jéggal ko yërëm ko doog koo dugal ndax xel dana nangu loolu su ko defee borom xel ba dëgg mooy kiy góorgóorlu ci ñaar yi góorgóorlu ci jëf lu baax te yaakaar njëggalug yàlla ak yërmandeem yàlla yàlla jagleel ñu ko borom bi mu ne dañ leen ñeel àjjana joo xam ne lu tedd la mbokk àdduna teddul suñu borom nee na ka masali xaysin wala boog ay yu bëri wax na ko ajabal ko faaru nabaatuhu suma yahiiju fa taraahu musfaran suma yakunu xotaama adduna lu mu taaru taaru immeuble yi katkat yi dongoma yi lépp mbokk lépp poussière lay mujj amma aljanna mooy wërsëg woo xam ne moo ànd ak teddaange day gën a neex ba faw ña fa nekk di gën a dund ba faw di gën a taaru ba faw loolu mooy risque boo xam ne karim la muy aljanna amma ñi nga xam ne nag ñoo ngi dox ngir jéem a fay diine yàlla ji yàlla bëgg na jubal ay jaamam ñoom ñu ne njub googi dafa amee mi ngi noonu moo tax suñu borom mu ni ah muajizin mi ngi noonu bokk la mujizin ñi nga xam ne dañuy jéem rek di arrêté waaye dañuy jéem a concours ak yàlla suñu borom yàlla mu ne ñooñu day mbugal mi ngi leen di ñeel loolu it mu lay wone yow julit effort boo man ngir tasaare diine yàlla ji nga la way def ko yonente bi alayhi salaam nee na yàlla jubale ci yow benn nit moo gënoon nga am xéewal yi nekk ci kaw suuf yépp bul xeeb sa bopp école ba ngeen nekk service ba ngeen nekk tool yi ngeen nekk fu mu mën a nekk bul xeeb di woote ci yoonu yàlla loolu moo nekkoon taxawaayu yonent yi ndax kat yàlla am na ay noon yoo xam ne guddig bëccëg ñi ngi pexe ngir fay diine yàlla ci di ko fayee ci seen kattan soo demee un peu partout dans le monde dañuy gis ay jullit ñoo xam ne ñi ngi ci kaso yi tey ñii rey nañu leen ñii ay état ñoo ko def ñii borom kattanu ko def doole lañ xeex ak ñoom doonte ni xeex bi gën a bon mooy xeexu xalaat bi nga xam ne moom la ñuy xeex ci suñu kër yi la nga xamee ni nii mooy yéeféer yi am na lu ñuy tuddee village planétaire seen xalaat ñoom la ñoo bëgg àddina yépp dox ci looloo tax télévision yi réseaux sociaux yi yépp pexe bu ñu mën daan ci investir des milliards suñu borom mu ne waddu law takfuruuna kama kafaru fa takunuuna sawa fexe ba fay diine ci kaw suuf borom bi nag mën nañu mel noonu day dana leen ñeel mbugal mu ñaaw doon ñeel leen mbugal mu tar muy rijz alim amma ñi nga xam ne nii dañoo jot xam-xam yara lazina utul ilm mooy ñi jotoon xam-xam bu doon ci jamono yonente bi alayhi salaam ku mel ne najashi ak labbe yi ko wóoroon yépp ca palem ba bi ñu leen jàngalee alquran dañoo ànd jooy dugg ci lislaam ay abdullah ibnu saba salman al farisi ñi yoroon xam-xam jiitu lislaam bi ñëw ñoom day lañ xamoon ca tawraat ak injil biñ jàngee alquran xam nañ ne lii mooy dëgg waaye itamit même bu dul looloo ñi yàlla may ñu géeju ci xam-xam scientifique tey jii da ngay gis ñu bari ci ñoom biñ jàngee alquran dañuy xam ne lii mënul jóge lu dul ci yàlla bokk na ci kenn ko gën a siiw muy kiif moor bi nga xam ne nii un allemand la bi jëroon prix nobel ci la nga xam ne mooy embryologie ci àdduna bi yépp bañ ko leeralee na ko lii ngay wax lépp alxuraan waxoon na ko depuis quatorze siècle dafa yiimu bañ ko joxee alxuraan ba mu liir ko dafa ñëw tuub dugg ci lislaam mu ne lii kenn mënu koon a xam lii ci yàlla rek la mën a jógee loolu benn misaal la ci mille misaal misaal yi nga xam ne tey am na en Occident ay kàngam ci wàllu science di tub dugg ci biir l'islam waaye it suñu borom mu ne uutul ilm nga dégg ci ñaari mbir mbir bu njëkk bi ay yow ndawal julit góor góor lu jéem a xam xam-xam boo mën a xam baax na waaye nag xam mil priorité priorité des priorités mooy nga xam sa diine nga nekk ci yow gàcce nga jàng ba nekk architecte informaticien jekk ci lu mu mën a doon te faratay sa diine xamuloo ko waaye it gëmal it yàlla mooy xamal da ngay ñaan loola yàlla xamal nga bañ koo bakkoo laa ilma lana illa ma allamtana amul kuy xam ku dul yàlla xamal jeex na su ko defee loolu leen utul ilm ñoom day xam nañ ni lii wàcc ci yow lool rek mooy dëgg mbokk gaa yi dëgg goo xam ne nii absolu la bu amul leneen alquran rek la lu wuuteeg moom rek kàcc la lu wuuteeg alquran du dëgg huwa alxaq jeex na borom boobu nag subhanahu wa taala nee na alquran joojee yahdi ila sirati al-aziz al-hamid alquran mooy tegtale yow mi bëgg a jub alquran mooy tegtale yoonu yàlla bi nga xam ne al-aziz moo not lépp ci kattanam al-hamid cant yépp moo ko yeeyoo loolu it mu lay woon boo bëggee izza teddaa nga adduna ak alaxira alquran dong nga ko mën a amee soo bëggee la nga xam ne nii mooy sa mujj doon mujj goo xam ne mujjug cant lay doon ci alquran da ngay jaar feneen foo jaar fudul alquran toroxtaange moo lay xaar alaxira mi ngi noonu yahdi ila sirati alaziz alhamid borom boobu nag bi mu waxee lii ba pare ca lay indi nag beneen catégorie mooy catégorie boobu nga xam ne ñooy jóg ngir bëgg a fay diine yàlla ci mu ne yéeféri da ngay gis ku dajeeg sa morom da ko xanaa du ngeen kaa ñu tegte leen benn góor ñoom ñëpp xam nañ muhammad avant ko yàlla yónni mooy kiñ gënoon respecté ci màkka waaye comme bëgg nañ ko saboté daaneel ko waaye du ngeen kaay ñu tegtal leen benn góor day nee na bu ñu dee ci biir suuf ba tasaaroo yàlla dañuy bindaat ba ñeen bind loolee mooy la nga xam ni mooy kukkali bañ doon kukkali donte ne Cheikh Ousmane yëggaleel ñu ko
بل الذين لا يؤمنون به في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سامغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير barakallahu fikum yéefér yaay wax ba tey aftara ala allahi kaziban ay a aftara ala allahi kaziban ndax moom daa dóoral ci yàlla ay fen am bihi jinna wala boog ay jinna ñu nekk ci moom bal illazina la yuminuuna bil axira suñu borom mu ne day la am mooy ñëgëmul alaxira day fi l azabi wa dalali l baid ñi ngi ci mbugal ak réer goo xam ne réer gu sori la أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض xanaa ñoom gisuñu li nekk seen kanam ak li nekk seen gannaaw ci asamaan ak suuf in nasha naxsif bihimul ard suñu neexee day ñu xar suuf ci ñoom aw nusqit alayhim kisafan min assama wala boog ñu daal di rotal benn daggit bu jóge asamaan inna fi dalika la aaya nekk na ci lii day kawtéef mi ngi noonu li kulli abdin munib ñeel bépp jaam buy dellu ci yàlla wa laqad aatayna daawuda minna fadla ñun dey joxoon nañu yonent yàlla daawuda lu jóge ci ñun muy ngëneel yaa jibaalu awibi ma ah ay yow montagne yi delloo leen ànd ak moom ay lu mu tari tari leen ko yéen tamit wa tayra tàggatoon nañu it picc ya ñuy ànd ak moom wa allanna lahu alhadid nooyooloon nañ ko ñeel ko lii di weñ bokk na lu ko yàlla digaloon an yamal sabiqat ay daawuda defaral ay gilet mooy ay mbubb koŋ yoo xam ne mbubb feer lay doon ñu koy sol bu ñuy xeex wa qaddir fi sard gannaaw ba nag na nga yeme la bu baax tëjukaay bi nga xam ni ca la pont ba koy tëj di dugg wa amalu saaliha ca ngeen jëf yaag sa njaboot ak yiw inni bima taamaluna basir man day la nga xam ne yéen a ngi koy def nekk naa koo xam ne nii ku ko gis la mi ngi noonu bokk yéeféer yi kon bokk na luñ doon sabooteente seen biir waaw muhammad moom li muy wax ndax dafay duural yàlla ndax loolu ku ne xam ne mënut a nekk wala boog moom ay jinne ñoo nekk ci moom ñu war koo yóbbu faji ko loolu mbokk da ngay gis ni yéeféer yi la leen alagoon ba ila yawmi diin mooy dañoo jëfandikoo seen xel ca jàpp ne lu xel nanguwul rek warul mën a nekk ca mbokk xelu doomu aadama moo déggam ak bëtam ñoo yem daa limité tey jii ndax yow mi toog fi ci jàkka ji man ngaa dégg ñay waxtaan ci ak apes munte nekk ndax yow mii toog ci jàkk ji mën ngaa seen jàmm gën munte nekk lu tax parce que sa bët daa limité et pourtant yaa ngi gis xel mi it noonu la demee su ko defee doomu aadama mbiri àdduna bii rek am na ci yoo xam ne da ngaa dem ba gis ko doo koo nangu waaye xel mënu ko war a nangu wallahi mbokk portable yi ñu yàlla war a sëgal ku dellu woon cent ans ci gannaaw laaj sunu maam yi ne muudu day dana toog jaaxaar ci kaw lalam di waxtaan ak sàmba ma nekk ca New York ndax loolu mën nañ ko nangu te du mbokk mënuñu ko nangu nettali naa leen fii suñu góor goo xam ne ma nettali ko waat ko ngir ngeen profité ñaanal ko suñu jàkka ji bi mu paree moo ko jëkk a peinture muy góor gi Dramane Diallo yal na yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko nee na seen mag ñi jëkk a dem France dafa am benn ku ci ñëw ñoom ñu ngi dëkk Bakel ñu ñëw toog ci penc mi mu ne si France am na fa saxaar yoo xam ne ci biir suuf la ñuy daw paa yi ne ha ñu ne waaw ba mu jógee dem ñoom ñëpp ñu xaqataay daanu ci suuf waaye kii ma mën a kàcc waaye ku ci tukki ba ñëw rek di kàcc saxaar bu muy dawee ci biir suuf ah mboo ko xoolal ma loolu parce que effectivement seen xel mënul woon nangu loolu tey bu ñu demee ba biir géej entre France ak Angleterre géej gi lañ bëtt ci suufu géej ga train de fajar di daw na ku leen waxoon loolu lu ñu wax kon mbokku doomu aadama yit loolu lañ doon wax yonent yi non nit ki dee doon poussière mu naan day jógaat kii daal day fen wala boog ñu xam ne ay jinne nekk ci moom borom bi subhanahu wa taala ne déedéet li am mooy ñi nga xam ne ay yéeféer lañu day dañoo nekk ci réer ak mbugal mbokk yéeféer ci mbugal la nekk yow ndawal jullit bul ñee yéeféer seen gratte-ciel yi seen avion yi seen milliards yi teewul ñu ngi ci mbugal ku gëmul yàlla gëm bu wóor rek yaa ngi ci mbugal xoolu mbokk ki gëmul alaxira soxnaam dee na jàpp ne na àdduna tukki ne dootu ko gis te mukk lu ko mën a dal ci kaw suuf yàquli na jàpp dina c'est fini ndax dana wu dana yem ak julit bi nga xam ne gëm ne na alaxira ngi ñëw julit bi gëm ne yàlla mooy dogal lii ma dal mu naqari tey su neexee yàlla mu changé ko loolu tax borom bi ne allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun julit moo nekk dal moo am tawfiix waaye mbokk yéeféer lu ko yàlla mën a jox ci àdduna xiiwal googu mbugal lay continuer doon ci moom fil azab ñu ngi ci mbugal maishatan danka dund gu xat ñu ngi noonu borom bi ne waaw ñi ngi weddi day dekk am na xanaa ñoom xooluñu asamaan xanaa xooluñu suuf li fi yàlla def ci kattan te suñu borom mu ne la xalqu samawati wal ardu akbar min xalqi nas bindug asamaan ak suuf moo gën a màgg bindug doomu aadama yi borom bi mu ne su ma neexee day ñu ngi saboote sab yonent su ma neexoon xar suuf dogal leen ci ñaata yoon la ko yàlla def ay tremblement de terre yoo xam ne yii ci à peine ay deux minutes plus de cent mille morts yoo xam ne day am ngeen yi fi amoon yàggul dara ci ay ay Haïti ay Iran ay Japon partout wala ma indi dog bu mu jëlee ko asamaan daañal ko seen kaw te loolu da ngay gis ne suñu borom yàlla léeg-léeg muy wàcce ay lu ñu tudd ay bolide dama ay angal ay àllu Australie yeeg yu dema noonu ay xeer yoo xam ne bu dalee mën na indi ay cratères yoo xam ne nii daanaka ay xur lay doon su ma neexoon ma def ko borom bi subhanahu wa taala nag ne lii day nekk na ci kaawteef ñeel bépp jaam buy dellu ci yàlla te mbokk bépp julit boo xam ne ni xolam dund na lépp lu mu gis ci asamaan day yokk ngëmam lu mu gis ci suuf day yokk ngëmam suñu boroom wa fi kullin lahu aaya tadullu ala annahu alwahid amul lenn loo xool settantal ca rek lu dul sa ngëm gën a yokk ci loolu mi ngi noonu jalla wa ala borom boobu bàyyi loolu indil ñu benn échantillon te mbokk boo demee ci scientifique yi dañ naan un bon chemin vaut mieux que long discours nii la ñuy def ak lii la ñu war a def suñu borom nag wone jaamam boo xam ne moom daa def muy daawuda alayhi salaam boo ko daawuda yàlla da ko may ngëneel moo ne def naa ko fadla bi gën a kawe mooy def na ko yonent def ko muy buuru jamonoom buur bi gënoon a mag ci kaw suuf ci jamonoom mooy yonent yàlla daawuda kenn moo ko remplacé ëpp la ko muy doomi boppam te loolu ci nguuru daawuda lay bokk muy suleyman waaye jamono moo nekkoon buur suñu borom yàlla may ko la nga xamee ni ni mooy xam-xam xikma comme ni mu koy waxee ci baqara suñu borom yàlla may ko baat bu mu mayul kenn ci jàng yonent bi alayhi salaam da doon wax abi musa al ashari baat bi am na baat boo xam ni ci soixante dix bokk na ci baat soixante dix baat yi yàlla may daawuda moom yàlla may na ko ci benn te bu musal bu daan jàngal alquran da daan yiim sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu ne benn baat la ko may ci juróom-ñaari baat juróom-ñaari fukki baat yi mayoon daawud alayhi salaam yàlla tegal ko ci la nga xamee ni nii tamit may ko ci jaamu yàlla yonente bi alayhi salaam nee na moo dàqoon a jaamu yàlla ci kaw suuf daawud alayhi salaam firiwul nag moo gën a rafet jaamu yàlla ndax dàqa jaamu yàlla rafet jaamu yàllaa ko gën am déet mi ngi noonu moo tax bokkul ci ulul azmi min rusul waaye nag bu dee jaamu yàlla rek yonent bi nee na koor gi gën mooy kooru daawuda kenn mënu koo romb mooy woor tey ëllëg nga dog amul beneen koor bu gën a baax boobu naafili bi gën mooy naafila daawuda alayhi salaam da daan nelaw genn wàllu guddi gi taxaw ceer ba nelawaat six heures sixième ba doog a jóg ànd ak nit ñi fajar kenn mënul def lu gën a rafet loolu gis ngeen bu masaan xeex du daw moom moo reyoon jaaluuta daawul lekk lu dul lu mu liggéeyal boppam te yonente la buur la gars yi ndax gis ngeen li yàlla dagale ci moom yépp kon yàlla mu ne defal naa ko fadla suñu borom ne montagne yi ànd leen ak daawuda lu mu wax wax leen ko am na lu ñuy tuddee écho écho mooy tey jàkk bi ni muy defee nii waaye suñu borom yàlla lam ma yoon daawuda mooy lim mujj may tey doomu aadama tey maa ngi toog fii di wax haut-parleur yaa ngi ci kaw lu ma wax ñu sànni ko fu neex yàlla am déet loolu mi ngi noonu loolu daawud la ko yàlla jëkk a defal picc yi dañ daan ñëw bu daawud dee jàng tawraat zabuur bi ko yàlla may nga xam ne tawraat moo ko jiitu buy jàng zabuur picc yépp dañuy ñëw wër di ànd di way comme ni daawud di jànge montagne yi di amplifier gars yi li neex na day am déet ba dañuy wax ne njaa àll yi sax dañ daan daw di déglu si daawud alayhi salatu wassalam ni ngi noonu daawud boobee borom bi subhanahu wa taala ni yombalal naa ko weñ muy le premier tëgg képp kuy xeeb nit naan ab tëgg la ak ñeeñoo la na nga commencé ca daawuda le premier tëgg mooy daawuda ki njëkk liggéey ci weñ mooy daawuda alayhi salaam loolu la ñuy bàyyi ci xel bu baax mbokk yi leen tibaale salaam di wax naan bàyyi leen ko fa innaha muntina mooy di xeeb nit ki ngir famille ba mu bokk kii nangam la kii nangal la kii nangal la loolu ay affaire nit ñi rek la soo remonté ji ay dëkk yi mel na ay ganaag yooyu aristocrate yi fa gën a kawe muy tëgg yi loolu ay métier la comme tey ni àdduna bi tasaaroo mille métier am na fi su ko defee nit ñi ñi ngi gënante ci ngëm ga ñuy gëm ak jëf yi ñuy jëf waaye gënante wuñu ci cosaan ñun ñëpp ci aadama lañ jógee alayhi salatu wasalaam kon borom boobu subhanahu wa taala loolu la wax mu ne nag kii mooy yonent yàlla daawuda borom bi subhanahu wa taala daa da ci teg ne ay daawuda defaral ay mbubb de guerre mooy ki ko jëkk a defar moo jëkk a defar mbubb de guerre ci kaw suuf waaye mbubb yi boo koy defar bouton yi koy tëj ni pression yi yeme la ko ba mu yem juste pression bi fi muy dugg bu ëppee xam ngeen du ca toog bu xatee boo ko dugalee mu mu toj yeme la ko ba mu yem mbokk yàlla ñun lay waxal daawuda passé na waaye ñun lay waxal yow mi nar a liggéey gannaaw ba yow maçon bi yow mécanicien bi yow kum mën a doon lépp luy liggéey xaddir mooy def ko na mu yeyoo ak bari tey ay maçon yu nekk laaxira fekk rey nañ mille personnes seen gannaaw mi ngi noonu tabax ab tabax lam laaj ci béton joxoo ko ko lam laaj ci fer joxoo ko ko tabax ba taxaw vingt ans daanu rey du kenn xamul kenn warul xeeb sa bopp lépp luy liggéey rek rafetal ko lépp bi ñuy terminé tubaab bi ñoo koy lépp yàlla xam ndax dëgg la am du dëgg ñu ne buur bi dafay préparer guerre armée bi yépp ñu tàggat leen fas yépp ñu tàggat leen léegi nag am na benn ko yoroon mbaarum tëggam moom faalewuñ ko sax bañ demee ba war a dem guerre ñu indi fas yi nag mu war koo feere mooy feer yi nag ci suufu tànk yi moom it comme jàpp ne dañ koo xeeb fas yu ñëw rek mu teg benn feer daaj benn pont bàyyi mu jàll gis ngeen noonu la def fasu buur bi biñ demee attaqué rek feeru buur bi fa daal di deñ fas bi fakkastalu buur bi daanu gaa yi rey ko armée ba daw ñu dàq leen waaye ndax moom mucc na ci bi gaa yi ñëwee taal dëkk ba taalaale mbaaram gis ngeen ñu joxe ci misaal ci ne société bi ñépp la ñu war a jox cër waaye ku nekk fa nga nekk da nga koo war a rafetal ndax ku nekk ci ñun def sa warugar mooy tax dëkk bi dox moo tax jàpp jàmm am waaye kenn ci ñun bu ñaawalee rek ak bari ay mécaniciens yoo xam ne accident ñoo ko waral ak bari ay ñoo xam ne nii vulgarisateur yoo xam ne ba ñuy monter pneu nit ki defaruñ ko ba mu baax pneu ba naaw accident am ala kulli xaal lépp loo mën ne qaddir qaddir fi sard gannaaw ba nag suñu borom mu ne amalu saliha te ngeen def yiw xam ne lépp lu ngeen ñu def maa ngi koy gis te loolu mbokk mooy ñetti grade yi diine grade bi jëkk bi mooy al iman mooy nga gëm-gëm gu sell ñaareel bi mooy l'islam nga def ndigal yi bàyyi tere yi ñetteel bi mooy ihsaan foo mën a nekk nga xam ne yàlla ngi lay gis ci xam ne yéene bi nekk sa biir xol yal na yàlla rafetal suñu iman rafetal suñu lislaam rafetal suñu ihsan yal nañu yàlla boole ak daawud ak yenentee ci firdaws al aala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain mu ne la mu ne lan mooy bàkku bàkku mooy ngay puukariwu naan maa mel nii maa xam lii loolu mooy bàkku ba def ah waaw kon ni mbir yi def ci làmb yi rek maa daan diw maa nanga nangam loolu mooy bàkku bàkku mooy ngay wax la nga xam ni da nga koo def ci lu ci ci ci ci ci njàmbarte loolee nañu xam ni bu dee lépp lu aju ci wàllu diine ak adduna yàlla bëggul koy bàkku ndax julit moom day gëm la hawla wala quwwata illa billah lépp loo xam ni def nga ko kàttanu yàlla la su ko defee julit moom place bàkkoo mooy sant julit place bàkkoo mooy sant xam nga lu kenn xamul nga sant man nga lu kenn mënul nga sant def nga lu kenn deful nga sant waaye julit moom du bàkku wallahu alam naam bismillah waaw différence entre maye ak sarxe sarax ñoo ngi koy jëmale ci miskin maye nag ñoo ngi koy jëmale ci ki nga seqal kóllëre mën na am sax moo la ëppale mën na moo la ëppale nga may ko amma bu ñee sarax moom dañ koy jox faqir ak miskin wallahu subhanahu wa taala alam naam donte ne ñaar yépp tuyaaba la li nga mayee ci yàlla tax da nga ci am tuyaaba même bu dee kanka may moo la ëppale li nga sarx yi da nga ci am tuyaaba mi ngi noonu wallahu alam naam
léegi il y a deux ans de cela euh, ma am benn rêve avec une femme depuis lors du ma ko wax Euh, mais dama ci sant yàlla ñu ngi sant yàlla ndax man nag sama gisoon rêve boobu du ma ko dama koy rêve mais en même temps ma ma ma- dama lay laaj benn question ndax xam nga da ngay laaj ba xam laaj léegi dafa benn journée dafa ma laaj ni ma dafa wax ni ma suñu demee àjjana incha allah benn jaam yàlla la suñu borom may mu wax sama baat mu jël yàlla Ibrahima léegi nag ba ba ba ma bëggoon ñu defal ay éclairage ci loolu
waaw dama dama daan wat sama sikkim bi ma defee benn rêve rek ba ba léegi defuma watutuma ko ala kulli xaal rêve xamu nu mu demee waaye boo koy bàyyi da nga koy bàyyi ca yàlla tax suñu borom nag mën na laa woon ci gént loo xam ne da nga ci yége ne ah kay lii daal ci yàlla la jóge kon naa ko bàyyi ca yàlla tax loolu rek moo la cay mën a jëriñ mi ngi mi ngi noonu amma buñ demee àjjana yonent yàlla Ibrahima rek may wax déedéet loolu loolu amul loolu amul benn mbir bokk na daal ci ay hadis yoo xamee ne nii borom xam-xam yi dëppoo wuñ ca mooy yonent yàlla daawuda buñ duggee aljanna day fay jàng alquran waaye hadis yooyu dëppoo wuñ ca mi ngi noonu wallahu ah subhanallah ah subhanallah mu ne buñ demee àjjana yonent yàlla ibrahima rek mooy fa yur sikkim déedéet mbokk sikkim dafa bokk ci li yàlla taarale ay jaamam mi ngi noonu sikkim dafa bokk ci li yàlla taarale ay jaamam xam leen ne mboolem waa àjjana dañuy yor ay sikkim mboolem waa àjjana dañuy yor ay sikkim ndax bu waa àjjana seeni xel day mat te bépp góor bu xelam mat day xam ne taar la yàlla dolli góor ci sikkim ba ñëw na ci ay hadis yàlla xam ca degré hadis ba ñu ne malaaka yi dañ naan sant ñeen na yàlla mi taaral góor ci sikkim taaral jigéen ci ween kon loolu la shakk ne loolu amut wallahu subhanahu wa taala alam naam naam nga mu ne nga lan nga waaw déedéet mbir mi bu dee danga koo def wax ko te bi nga koy wax sa yéene nekkul ci bakko danga koo wax rek ngir ñaax ci ñeneen wala ku la laaj nga ne moo ko def loolu lislaam du la ko toppee yàlla moo gën a xam li nekk ci biir xol yi su ko defee loolu moom dara nekku ca li ñuy bañ rek daal ngay wax ngir ngistalu di wax ngir bakku di wax ngir xeeb keneen di lor keneen maa la defal lii wala defal lii mais bu dee loolu lépp amu ci loolee moom da ngay gis ne islam bañu ko naam Cheikh Ousmane waaw.
maaleykum mu ne jigéen li ma question bi démb dama kii mu ne moom fa dégg ko ne ko benn oustaz moo ko wax jigéen bu demee di fa ragal yàlla def muy tëdd guddi di nelaw bu yeewoo fajar fekk gis ni laab na te bi muy tëdd yëgagutoon laab mu ne moom bu yeewoo daa war a fay si biir biir boobu parce que kon da ko bëgg a xiyaab xanaa ne xëy na mën naa mu set ci biir nelaw yi te heure bi jeexul wala la est ce que moom bu yeewoo fajar rek lay julli wala day commencé ci biir ndax jigéen bi nga xamee ne nii moom dafa àndoon ak règle waaye bi mu yeewoo fajar mu gis ne laab na ndax day jël day fay timis ak géey waaw loolu mooy la borom xam-xam yi di wax mooy yeewoo na fajar jotagul loole da ngay gis ne timis ak géey la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ni lii di waxtoom daruriya ma ngay jeexee fa fajar tabbe kon maadaama fajar jotagul ca moom wóor na ko ne laab na su boobaa kon day sangu ji fay la nga xam ne timis ak gée la su doonte ne nag wóor gi mi ngi ko am gannaaw ba nga xamee ni ni fajar jot na ba pare te la koy doog a wóor na léegi laab na su boobaa moom loolu dañ naan timis ak gee bi du ko engagé waaye bu ko yaqin bi dikkalee avant timis ak gee loolee day fay timis ak gee allahuma lu dul xëy na ay cas yu xaw a compliqué mooy suñ demoon ba jàpp ne diggante fajar mu ni fee juri lu dul ñetti rakka kaza wa kaza yooyu moom xëy na ay détails la yu xaw a gudd waaye daal ci gàttal bépp jigéen boo xam ne yeewu na avant njël yëg ne man laab na ku mel noone dafay fay timis ak gee bu fajar jotee mu da koo julli mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain